gan gi Abdou Sané coordonnateur PASTEF Ziguinchor ñu ngi lay nuyu di amaan mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM. maa ngi ñu amaan mbégte mu rëy dalal la ci matinalu réew mi FM tey yow yaay coordonnateur PASTEF Ziguinchor ni ma ko waxee Ziguinchor googa nag ayubés bi ñu génn ba tey takk der yi dañu kaa sikkimu ñu njoxtu ne dañoo bëgg a teg loxo seen njiit Ousmane Sonko jàkkaarloog ndaw yu wër këru Ousmane Sonko googa ne kenn du ko fi jëlee naka ngeen dundee boobale situation. bon ñun dañu dal dañu mus dal parce que bu dee ay affaire takk ndeer bul fàttee ni ça fait plus de quarante ans Ziguinchor mooy capital takk ndeer yi hmm. mooy li ñuy wax force de sécurité de défense léegi nag bu fekkente ne lépp loo xam ne lu jëmee ci Ousmane Sonko kooku moom am na loo xam ne ma leeral la ko dafa am détermination population bu Ziguinchor fii à Ziguinchor comme partout ailleurs au Sénégal mu nekk ay jeunes mu nekk ay jigéen mu nekk ay mag toute composante ñoom ñoo décidé ni kenn du appliquer arbitraire à Ousmane Sonko kenn du ko nangu Ousmane Sonko defu dara parce que Macky Sall dafa bëgg troisième candidature ba mu jaral ko lu mu ko jaral. sunu fulla ak sunu fayda aussi moo ñu jaral pour que ñu def loo xam ne moo ko jar pour lépp loo xam ne mun na protéger Ousmane Sonko mun na pro protéger tam le projet préconisé par Ousmane Sonko et validé par le peuple souverain. Mmh. alors teewaayu euh, takk der yooyu euh, ñu bari jàpp ci ne dañu bëgg a teg loxo Ousmane Sonko laata procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko est-ce que loolu ngeen di sóor euh, ndax itam gënta yomb xëy na mu dem wuy ji ci àtte beeg woote àttekat bi. Ousmane Sonko dafa yàgg a dem tribunal Ousmane Sonko dafa yàgg dem wuy ji convocation tribunal li am ba am mooy lan. tey dañu nekk ci Sénégal boo xam ne aussi dafa bëri ay naafeq bi Ousmane Sonko di subir provocation harcèlement agression ba ñu bëgg ko rey bëgg ko faat am na ñu bëri tey ñii di wax dialogue la paix et ñoom ñëpp dañu nekk pat te jógul pour wax su Ousmane Sonko amee convocation ñaari fan balaa jouru convocation bi këram yëpp ay takk der ñoo fay taxaw barricade këram. mu nekk le seul citoyen boo xam ne ay doomam mënatuñu dem école ay mbokk mënatuñu ñëw seet si ko ñu mu bokkal politique kenn mënul ko fréquenter parce que lan la dañ ko jox simplement convocation dem na ba quartier bu mu dëkk kenn amatul jàmm su amee convocation ñu dem ba toll foo xam ne dem ba ñu forcer buntam ubbi génne ko ci otoom toj vitrine génne ko dugal ko ci seen oto dem ba toll foo xam ne mu am produit boo xam ne boobu la jël. pour mun ko rey pour mun ko faat dem ba ñu toll foo xam ne moom amul sax possibilité mu tànn tali bu muy utiliser pour dem wuyu ji kooku bu demee ba mu gis ni dem uyu kaso ci condition yooyu c'est synonyme ñu koy rey man mi di wax ak yow du ma nangu ma jox la paak boo xam ne boobu ngay jël pour di may rendi ci la Ousmane ne affaire bi nekkatul léegi affaire justice mais leneen la umb te lu mu umb mooy lan Macky Sall pour moom tant que Ousmane Sonko mi ngi dund troisième candidature am du mu a am léegi jaral na ko mu rey Ousmane Sonko parce que moom fu mu teg nguur tuuru deret jaral na ko lu ne ci la Ousmane Sonko tam ne am na fulla te nekkul Ousmane Sonko kese ñu mu bokkal lépp xelal ko ne xam nga léegi lan la jeu bi leer na ñii nekkul justice nga amal affaire. mais règlement de compte nga amal affaire boobu nag defante la defante la defante la hmm. voilà alors kon mun nañu jàpp ne Ousmane Sonko fasatul yéene wuy ji yoon wala bu ñu ko garantilee ay conditions yu jëm ci kaaraangeem ak àtte uh, bu tëddee njaxanaay dana wuy ji non wuyu yoon sax dafa fekk yoon am yoon amatul Sénégal kooku boo ko waxee day mel nii franchement da ngay bëgg rek yoon moo amatul Sénégal li am ba am lan bëgg-bëgg Macky Sall pour troisième candidature moo am te boobu ñëpp d'accord ni warul am ne ko ci ñun la jógee moom ci boppam sax moo ne du musa am ay premier ancien premier ministre yëpp ne ko du musa am mu waat ni du am kenn dooru ko kenn forcé ko mu def lu tour du monde fu mu dem mu waat ni troisième candidature du am ñu ñëw ba tollu tey mu bëggee lu won nit ñi ni moom nguur jaral na ko lu ne xanaa Macky Sall moo ñu ëpp fayda comme moom jaral na ko lu ne kii la ñu ne ñun tam jaral nañu lu ne donc Ousmane Sonko bu muy poser conditions yi c'est de bonne foi dafa gëmoon ni yoon am na moo tax mu poser ay conditions. Hmm. mais léegi leer na ni yoon amul. léegi dafa génn ci loolu kon yoon yoon yoon bu amulee même su Ousmane Sonko bëggoon dem ñun ñii ñooy bañ pour mu dem. kon Ousmane Sonko dootul wuy ji yoon parce que Ousmane Sonko moomul boppam ñun ko moom. d'accord kon Ousmane Sonko dootul dem tribunal mun man de bokk naa ci ñoo xam ne gëwuma sax mu dem tribunal. Hmm. bu demee sax tribunal leneen lay niro gëwuma sax mu dem tribunal parce que tribunal moo amul lu ñuy wax tribunal dafa nekk léegi genre succursale alliance pour la république parti APR da ngay dem ñu ngi fay fekk wala ñu doon ay juge mais dañu doon ay militant encagoulé mooy ñoo xam ne nangu ñu assumer seen responsabilité politique Macky Sall di leen di dicté ñoom ñu validé jéem a toroxal ay nit loolu laa ne. toll nañu tey foo xam ne su ma sañoon te loolu xam naa ne dina ñu ko may nekkul man peuple sénégalais ci boppam moo gëmatul ni tribunal dafa am ba Ousmane Sonko dafay dem uyu. Hmm. luñ yow li ngay wax noonu mooy tribunal du tribunal leneen la loo xam ne Macky Macky Sall moo ko moom comme permanence Macky Sall la rek c'est terminé amul benn différence. lu ko neex moo fay am alors léegi nga bëgg nga bëgg Ousmane Sonko jógee këram dem permanence à terre lu ko ci fekk. moo ko teg boppam bu boobaa <laughs> très bien leer na alors euh, naka nga jàngatee décision inspecteur euh, d'académie bu Ziguinchor euh, mu jël dogalu dakkal njàng meeg njàngale mi ba ñaax fukki fan ak juróom weer wu mai si Ziguinchor yëpp ak ci Sédhiou lan nga jàpp si boobu dogal. en réalité inspecteur moom moo signé tuuram mais ñëpp xam nañu nu muy fonctionner Macky Sall moo jël décision bi depuis Dakar ba pare mu defloo ko inspecteur bi gisuma ban inspecteur fii. moom moo mun a am fit jël décision ne dafay arrêté ay cours. dañu ko defloo. léegi lu tax Macky Sall defloo boobu defloo boobu. Hmm. ñaar région kese la ci Sénégal mooy Sédhiou ak Ziguinchor ñaar région kese la. Hmm. or bu fekkente ne affaire violence la. mi ngi am Dakar mi ngi am ci département yëpp département yëpp a yëngu mais xam nga Macky Sall moom ci boppam dafa am lu mu denc waa Casamance. yàgg na ko wone cest à que dafa am rancune bu mu leen garder moom rek moo xam lan la ko waa Casamance def ba mu jaral ko yenni parce que fu mu ne nii xale Casamance yi dañu yi seen i morom yeneen département yépp ñu ngi dem école jour examen bi du ñu seet ku ñu tere jàng ak ku ku ku jàng benn épreuve mooy am donc égalité de chance amatul pour ma Macky Sall tardel région Casamance du problème moom toroxal doomu Casamance du problème moom lépp lu mu mën a def pour que mu buum Casamance du problème moom loolu moo indi lépp lu am Casamance dafay nekk toujours exception boo jëlee répression par exemple da gis ni Casamance foofu la ñuy expérimenter toujours tir à balles réelles muy Bignona muy Ziguinchor muy Oussouye et cetera et cetera toujours foofu ngay dégg rey nañu nit parce que dañu tiré ay balles parce que Macky Sall mu teg Casamance yi téyewu leen comme ay nit beneen catégorie la leen classé. léegi je crois que waa Casamance ñoo war a toll foo xam ne seen fulla ak seen fayda moo leen war a yee pour ñu mën a xam ban taxawaay la ñu war a am ci kanamu Macky Sall loolu moo indi mu am doomu Sénégal bu tudd Ousmane Sonko mu indi un projet boo xam ne ku ne gis na ci boppam toutes les régions loolu moo indi Ousmane Sonko mu nekk le seul leader boo xam ne def na maillage national ba ci biir diaspora boo xoolee même les résultats des élections Ousmane Sonko mi ngi am ay résultat les meilleurs résultats en dehors de la région même de Casamance boo seetee en termes de chiffres loolu wane na ni il a fini de convaincre tout le monde et son projet est a fini d'être validé par le peuple souverain ku mel noonu boo ko amee war nga mun a am taxawaay boo xam ne war nga ko mun a protéger. ba nga xam ne suba doo rëccu. d'accord mais am na ñu am na ñu ko gisee neneen ne xëy na dañoo bëgg a aar euh, xale yi jàng ñiy jàng euh, ñoom ñëpp euh, ndax semaine bi ñu dëgmal mun na nekk semaine bu tàng bu fekkente ni dañu nar a jàpp Ousmane Sonko fekk ko ci këram jàmmaarloo boobu quand même bu fekkente ni dafa nar a am étudiants yeeg élèves yi xëy na bëgg leen ci épargner moo tax ñu jël boobu décision mënuñu ko gisee noonu itam. xanaa dëmb rek la ñu jógee enterré élève boobu dëkk ngoor xanaa dëmb rek la ko jógee dëkk bi aar xale moo amul ay xale yu ndaw dañu nag di fetal xale yi rey ñu yëpp fii Ngor xanaa exemple bii mi ngi ne du loolu c'est-à-dire que troisième candidature Macky Sall tant que comprendre nañu ko loolu lu hmm. ñu demee jaral am na ñoo xam ne daf leen jaral lu ne am na ñoo xam ne daf leen jaral lu ne ba tuuru bakkan jàmbur sax d'accord nañu ci l'essentiel na Macky Sall am troisième candidature bi donc ba demee ba tollu foofu amul beneen intérêt boo xam ne nit mun na ko gis ba mu mu xalaat bi am na fi yërmande ou pas xale yi décision bu ñu jël nii seetal sax du point bi vue pertinence man pour man xale yi ñu nekk ci biir classe ci la ñu gën a am sécurité que ñu nekk ci biti te bu ñu nekkoon classe foofu moo ëpp sécurité que ñu nekk ci biti deuxièmement am na lu ñuy wax égalité de chance munoo jël décision boo xam ne dafa cible simplement ñaar région te mu nekk région Casamance. Ah, ndax foofu la yëf gën a tàngee aussi hmm. Sonko fii Dakar lu fi mënoon a xewit Ousmane Sonko mooy génn hmm. jour boo jàpp Ousmane hmm. muy Matam muy Dagana muy Podor muy Dakar muy Pikine ñëppay jóg nekkul Ousmane Sonko un problème de Ziguinchor. dafa nekk un problème national. Ousmane Sonko dafa nekk un problème international parce que suñu waa diaspora yëpp dañu ko jàppale. Mm-hmm. les partenaires techniques et financiers ñoom ñëpp gëm nañu ni dans le cadre de la bonne gouvernance ku mel ni Ousmane Sonko suñu ko amee corruption détournement ak mal gouvernance yëpp dafay disparaître ku nekk gis boppam ci loolu donc jàpp Ousmane Sonko Ziguinchor terewul Pikine jóg terewul Rufisque jóg mm-hmm. terewul Mbacké jóg. Mm-hmm. moo waral ma ne la su fekkente ne ci angle boobu nga ko jëlee école yëpp la ñu waroon arrêté mais dafa fekk Macky Sall ci boppam faalewul Casamance. amul benn respect pour waa Casamance su sañoon sax tey mu reyee la Casamance de la carte foofu la toll ak ñoom. te ah, muy dox jàmm di di def di def en boobu en mais Abdou Sarr loolu mu sélectionné Sédhiou mu sélectionné Sédhiou mu sélectionné point. mais Macky Sall mi ngi def tout pour jàmm dellu si Casamance keroog rek am na benn base bu déposer les armes nga ni Macky Sall euh, reyu sañoon reyee Casamance. Hmm? gëmul lu muy def gëmul lu muy def loolu la tubaab di wax tap à l'œil gëmul lu muy wax boo duggoon ci biir xolom. Hmm. mu ngi mere Casamance comme c'est pas la peine man ba léegi problème bu ma wax waa Casamance moom laa xamoon man d'accord naa un ñu def émission spéciale. Hmm. boo xam ne diggante Macky Sall ak Casamance. ak Casamance dafa ma bëri ay éléments de preuve yoo ko illustrer pour wan la seen jaar-jaar. d'accord euh, en attendant loolu yëpp euh, léegi ñu bari ñu ngi laaj Ousmane Sonko lu tax mu dem toog Ziguinchor ndax dafa daw làqu ji foofu wala stratégie politique la d'accord nañu ne mooy maire Ziguinchor foofu lay liggéeyee et mais lu tax mu jóge cité kër góor gi dem toog euh, Ziguinchor booba ba léegi takk der yi ñëw wër ko fa ndomba mënuñu koo teg loxo lu tax mu dem toog fa Abdou Sané mais dafa mel ni soo ma laajee lu tax ma dem sama kër su ma demulee sama kër fan laay dem Ousmane bu demulee këram fan lay dem mu nekk mel ni ku amul adresse ku amul kër Ousmane Sonko bu demul pour toppatoo la mairie de Ziguinchor te mu nekk le maire lan lay niro du ñu ne abandon de poste quand même am na cette façon question yoo xam ne franchement question bi ci boppam sax moo warul am foofu laa toll. Hmm. kon daal dawul dafa dem fi mu war a dem. Ousmane nii la kuy daw ne dafa làqatu déglu ma Ousmane est ce yow mii Ousmane nii la kuy daw. fii de may laaj kenn du ma laaj Ousmane Sonko nii la boo xam ne jiitu tapet la. quand même ñëpp xam nañu kan mooy tapet Macky Sall kay mooy tapet Ousmane Sonko lu muy daw munoo am le soutien populaire munoo am le soutien du peuple souverain munoo am rapport de force favorable à toi ngay daw kuy daw mooy koo xam ne reconnaître na nii dafa faible. mais munoo yoree doole bu mel ni doole peuple bi ba pare ngay daw Ousmane mi ngi ni génn na jël na benn fuulam ba pare mu ko ne di liggéey ay dossier la nekk di liggéey fu mu ne nii dañu am douze projet au niveau de la mairie yooyu ne nag di suivre seen évolution hmm. ensuite y a d'autres programmes yoo xam ne accessoire yoo xam ne yooyu yëpp bokk na ci programme boo xam ne moom la ñu yéene waa Ziguinchor donc Ousmane mi ngi liggéey hmm. heure bu mu war a jënd day jënd am na heure pour liggéey boo xam ne pour jënd fii la jënd mais am na loo xam ne moom kenn war ko fi tudd. Hmm. Ousmane Sonko day daw Ousmane Sonko nanganam pas du tout léegi li ngay wax noonu dañ ko bugg a jàpp ci atal nañu ñëw nañ ko ñëw jàpp nañ ko ñëw jàpp Ousmane Sonko xëy na ñu fi nañu ñëw nañu ñëw ba këram pour jàpp ko. ma yégal la nii population Ziguinchor population Sénégal ñoom ñëpp ñoo décidé pour jël seen responsabilité kenn du seetaan Macky Sall mu mel ni dëkk bi bàyyi moo ko moom wala yaay moo ko moom dëkk bi ñëpp ñoo ko bokk. donc bu fekkente ne ñun ñëpp nañu foo xam ne dañuy nangu Macky Sall mu ñëw def lu ko nat keroog nga xam ni kon Sénégal du dara. d'accord mooy doon mooy doon dara la. Hmm. donc am. très bien mooy doon laaj bu mujj bi am na euh, ñu ñu dégg ñu ne dañuy jóg dox tànki jàmm ngir dal dellusi ci réew mi gannaaw fitna yi fi mujjee jugaat euh, ñuy euh, nara sumb ay waxtaan ak diisoo est-ce que yéen Pastef ba léegi yéen a ngi ubbeeku si ay waxtaan ngir dal dellusi ci réew mi. man de man Abdou Sané coordonnateur Ziguinchor. Hmm. yéeguma loolu te ma leeral la une chose. Hmm. fii képp koo xam ne doon naa fekk da nga bëgg a wax dëgg. Hmm. danga bëgg a defar affaire bi yomb na réparé. waxal simplement Macky amul droit def troisième candidature deuxièmement Ousmane Sonko war na nekk candidat ñaar réponses yi ku ko réglé. Hmm. jam ne ñooy. Sénégal retourné au travail. le février 2024 Ousmane Sonko sera porté triomphalement au palais de la République. Euh, ñi ana dina ma may ma dugal laaj bi rek ñi ñuy jàpp ñi ngi continuer di gën bëri si Pastef ak euh, seen ay sympathisants est-ce que am ngeen moyen de riposte am ngeen loo xam ni mën ngeen koo fajee jàpp yooyu ba mu arrêté. li ngay wax moyen de riposte mooy la volonté populaire ñun ñoo yore la volonté du peuple souverain ensuite feesal prison signe bu bon la apartheid bu muy pour daanu ci la prison c'est un mauvais indicateur parce que fu prison bëre bëre bëre c'est-à-dire que waxtaan moo amul arbitraire moo am brutalité moo am répression moo am or valeurs yooyu yëpp musuñu tee un tyran tyran musul gagner combat face à un peuple peuple moo gagner toujours un combat xanaa Soldatex bu amoon Afrique du Sud moo ëpp ñetti yoon Soldatex dina fii Sénégal terewul apartheid daanu na Macky Sall est à ses derniers bu yeboo mu xam fa muy teg tànkam mu xam la muy def. mais encore une fois ñun peuple du Sénégal dañu décider protéger Ousmane Sonko dañu décider protéger le projet de Ousmane Sonko te dañu décider installer Ousmane Sonko au soir du 25 février 2024 au palais de la République loolu kese moom mën a am leneen mënul am Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président. Ousmane Sonko président. jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, yow yaay coordonnateur Pastef Ziguinchor ñu di la gërëm particulièrement ci sa disponibilité. ma nit ma leen di fay di leen di gërëm di leen di encouragé ci liggéey bu rafet bi di def au profit di def au profit des populations. di def au profit.